Assane Samb gouvernement mi nga xam ne daal nañu koy taxawal ni ci démb ci alarba ci jamono joo xam ne juróom benn weer kott des laata ñu yegg ci présidentielle mi nga xam ne sax Amadou Ba di uliman jurin ya candidat la ci équipe de campagne lay nuru analyste politique bi lee di wax ne sax yenn ci ministre yi waruñu woon changer seeni post ci jamono joo xam ne ay semaine rek des laata ñu yegg ci scrutin ba. parce que am na ay ministère de souveraineté yoo xam ni dafa laaj stabilité comme affaire étrangères comme intérieur comme justice comme forces armées dafa laaj stabilité jarul di changé gis-gisam wuute lool nag ak gis-gisu Mamadou Sy Albert ndax nag moom jàpp na ne li tax njiitu réew Macky Sall tàbb kii di maître ki Kaba ngir mu wuute ci bopp ministère de l' intérieur Antoine Félix Diome. am na lu ko waral. xam xam-xamam màcc ci wàllum yoon màcc euh, am na aussi capacité déglu ku nit kuy déglu la ku mën a waxtaan la ku mën a euh, xool solution euh, et puis am na personnalité. ci di jëm ci mbirum gestion dossier Ousmane Sonko ci bitim réew mu jàpp ni itam Ismaïla Madior Fall am na taxawaay bi war ngir taxawal Sénégal ci institution internationale yi ngir defaraat image réew mi. Ismaïla moo xam na relation internationale ci loolu lay liggéey ci ci droit international donc ko euh, Ismaïla dina xëy na dem ci Nations Unies pour gën a euh, defaraat image Sénégal. bu ñu sukkandikoo nag ci ilimaan jurin ya di Amadou Ba gouvernement combat lay doon maanaam gouvernement la woo xam ne ñeent mission lañ ko sant bokk na ci gën a dooleel kaaraange gi organiser jongante présidentielle ya waaye itam fexe ba jàmm gi mën a dellu ci làngu politique ga